xam nga lu ñuy laaj. Hmm. que ni Bébé Saloum ndaanaan ka macha allah kenn werante wu ko wax dëgg yàlla heure bu amee combat ñu ne ndaanaan la soit da ngay daan wala da daan loolu moom àdduna xam na ko. Hmm. mais Bébé Saloum lan mooy problème parce que Bébé Saloum dañ koo atteindre mystiquement léegi Bébé Saloum ba woon ak bi am na différence mais lan mooy sa problème yow lan la lan la. waaw loolu nag. loolu yaay booy. Hmm. dama ciy sant suñu boroom bu baax. yàlla nag moo xam lan la ak jaam ñi nga xam ne ñi ngi xelli seen xel ci loolu li nu war lépp ni ngi koy def waaye ba jusqu'au bu duñ bàyyi ndax yoonu àdduna daa deux gaar bëri ay pakk bari ay ñal la léeg nga yéeg ba defa ni àgg nga fekk na xaajalagoo léeg-léeg nga defa ni eggoo fekk jot nga boo tibbee jël mm. te nattoog yàqu bi yàlla ko xeex ku ko neex la koy sot sa ndab yaa ngi dégg millier làmb sama empreinte du ci fay. ndax yamul Sénégal travers du monde lañ ma xam. fii may wax ak yow xaalisu iranien jàmbur lekk naa ko kàllu euh, MMA Canada. dégg ma wala déggoo ma. lekk naa maag benn iranien coronavirus bii moo moo moo virus yi dégg nga ma. Uh-huh. Euh, may sant suñu borom nag. di xam ni euh, sant rek war a jaam lu waay fekkee ba di ko nettali bu santu dus gor bëri na lu ma dal sama jom ak sama doon baafaal ak suma njàmbaar ma dund ko ba génn ci am na ñu doon dal ñu sàqi mais doom doomu garmi laa eh, tey Bébé Saloum mës nay bëre parce que combat yi dégg nga quoi xam nga man moom man leen la man damay wax li nga xam te ni moom moo du nekk naan ay kii ni Bébé Saloum say dañuy gis ni da nekk au forme da ngay nekk topp mais dangay dégg ñu naan Bébé Saloum écurie bi gëj na fa comme combat sa combat ak franc bi ñu ngi naan Bébé Saloum bu entraîné tey bu subaa du entraîné écurie ba xam nga après ñu ne Bébé bu ñëwee ba ci euh, làmb ji amoon na chance mais moom moo boppam chaque làmb léegi noonu lay demee xam nga yi dañ koy giñ Bébé Saloum quoi. Euh, ma wax la lu doy waar tey. Mhm. Franc dañ ko jëndal tribune ba booy ñëw duñ la jox billet li ma lay wax nii. booy xam nañ ci dara dangay ngay solti seetu faraañu bala nga dugg billet lañ ko jëndal. tribune lañ ko jëndal yow xam nga ci dara. xam nga ko bàyyi ma nga man fi la xam nga ko. ci suuf lan moo tax ngeen bëgg di maandu di noppi bëgg ñuy wax loo ñun. dee leen wax li fi ne. bébé Saalum man ci suuf laa nekk. Ah, waaw xaaral rek ma yaa ngi dégg. Ah. sans borom dogal jàpp li mu am moom. Mhm. combat man ak Franc amul benn autorité bu xam Bébé saalum ku dul docteur Macoumba Diouf ku dul docteur Macoumba Diouf ni la yëkkati na cent mille francs may ko Bébé Saloum ndax nag may gor si dul sonal kenn ci alalam mais Bébé Saloum yow nan ngay mën a xamee ne Franc instant bi macha allah am na jàppale am na lépp comprendre nga même ci état boo xam. non dafa naag dafa naag ma ñëw danga maa laaj loo xam ma développé. ñëw Europe la nekk defaral ma ay tiset may ma xaalis moom ma kumba tiset yi moom ma defaral ña 2577 la woon xaw ma mais billet yi ñu yóbbu stade maa ko jënd man billet yi supporters yi demee ñeen ñi ñeen ñi dem jëndal seen bopp bi billet yi jeexee ñi bi ñu dee dañoo jënd mais promoteur baa ngi muy dégg waa at naa ngi muy dégg musuma bëre te jënduma ci sama xaalis ay million billet may ko samay supporters ngir yàlla ma bindee partagé tey bu fi 5000 francs képp nekkoon sama kër ngay ñibbi ma jox la ko nga ñibbi waale ko. ndax Baye Fall laa makaarim laay dund. jàppale yéen mbër yi am mafia yéen man ku may ja sama waa écurie boobu di wax bu dee sama waa écurie nga déggee wax jooju. mais mais xam nga ñun tamit ci làmb lañ nekk. damay laaj damay laaj xam nga tey. wax ji dañ ko war di wax. da may déglu man ci làmb laa nekk. Mm-hmm. damay dugg ci ruq dugg ci ruqaani. sa waa écurie bébé Saloum ba nga jëlee franc ba léegi régulier oh? waa xam nga lu sabab loolu. merci beaucoup. sama waa écrit li ma warloog ñoom. ñu ngi may dégg def naa ko. Hmm, comme nan. ci ille yi nag ba yasxadu muy bu dee comme guñ may laaj su ma amee combat fay naa leen ko dese lu ma leen ñan dërëm lañ ca war a am ca pour cent ba jox naa leen ko. de si lu mu leen ñaat dërëm. kenn ku ci nekk lii sama wërsëgu bopp te moom ko yéene la ko it jox naa la ko ñu ngi may dégg. Mhm. damaa bëgg ñu xam ne da si côté entraînement mooy dañoo d' woon combat bi muy sama combat. comme sama combat la nag buñ leen metti ci ni ma ñëw écrit ba. doon naa ñëw. mais comme ñoom bëgguñ ma jël ko te wax nañ dëgg am nañ ci droit. Mhm. ndax maa ko jël te tàgguwuma leen. Mhm. ma tooñ leen du ma leen tooñ ñaari yoon. tooñ leen ci jël combat bi duma leen dëkkee xatal da nga sa bopp. non pas sentiruma sama bopp ndax écurie bu ne ñëw na jël ci ma nag ndax xam nañ talent bi ne ci man écurie bu nekk nag laa la wax booy dégg muy toj rek ñu ko jiite ñëw nañ jël si ma. Mhm. ndax nag yàlla moo dogal sama taay ak taayu tafaatin làmb da koo soxla. te bëre bi ñu soxla ci mbër yàlla def ko ci man naaguma ndamuma sama catu gémmiñ damaa mën bëre. Ah, biir écurie bi nag damay dégg ñu ne li ma wóorul ba tax mënu ma cay tontu par kenn par kenn ci ñoom mooy damaa xamut ndax waxi nit rek lañ jël wax wala ñoom ñoo koy wax mais naar bu ndaw na lu mu dégg ci bu mag wala ko déggee. non léeg-léeg dañ koy wax olof da koy wax a pare juum. mais yow naar bu ndaw dina waxtaane loo xam ne da koo dégg ci beneen naar ni moom tam newut naar ba tax ñu naan naar moo waxee loola. Saalum xam nga xam na ne nga ko léegi sa waa écurie ñoom ñoo dàkkuwul woon ci combat boobu mais yow xam nga ni combat boobu noonu li nga entraîné écurie boobu noonu bariwul. d'accord naa ak yow combat bi am na combat yoo xam ni champion yëpp du chaque jour la ñuy ñëw seen écurie man leader international la du chaque jour laay ñëw sama écurie te zone bi ñu dëkk dafa enclavé wu. combat bi nekk combat bu ma bëggoon néew dama doon daw écurie bi néewul damaa bëgguloon dem ci écurie bi mais damaa bëggoon combat bi te fi ñuy entraîné neex a pénétré dégg ma ma déggoo woon ci ak ñoom ba mu waraloon may wéet di entraîné léeg-léeg ak ñeneen. yaa ngi dégg mais man sama waa écrit laa àndal dem dem dem làmb ja yaa ngi dégg ñoom laa àndal dem yàlla def li gën ma ci sant suñu borom ndax sax nag bi ma xëyee rey gàtt di sant suñu borom am na ñu ko gisee ci ni Bébé saalum daa ñàkk jom waa léegi lan moo tax Baye Fall bu daanee ñëw rey gàtt gaa yi xewlu di bëggee di kontaan ah bu daanoo du tollanti loolu ak ah, xëy dama koy tollanti ndax kama daan daan ñëw di bëgg. doomu jàmbur la su ma amee tey lu bari damay tiit na xam ne ñàkk ko gunge su ma ñàkkee tey damay ree damay xam ne ama ko gunge. mës ci làmb lañ dëkk moo waral ñu may daan mbër mu ma jàppul mystique doo ma daan. Euh, xam nga gor sama combat ak franc doo dugg jox ma sama rajo bi biñ ne ginnaaw suba la waru mu woon a bëri ji. dama am problème mu sama zone bi daa déboîté woon. nday ngoone jox sama rajo yooyu. Mhm, ma xam ni comme maag promoteur bi amoon nañ benn erreur communication. muy communication rek ci ay affaire da ngay sol sponsor bi doo ko sol ci erreur de communication. sama rajo tànk bi xool na ma ko xoolal ci kaw noonu mu ngi ci kaw kii bi. Mhm. yaa ngi dégg. ma dem ba combat bi des ñetti fan. ma am benn lu ma gàllankoor. non sama ngor ma may ñu dégg ni. ah du ma bëre ji dañ naan dama yàq comme mu jàmbur comme la comme comme mu jàmbur dama yàq làmbi jàmbur te ñu ne gone la guy doog a agsi ci làmb muy suma rakk di suma frère de sang ci luñ bokk Saalum. moom fan. non non moom moom moom kii jamaïcain. ah ok waaw jamaïcain laa amuloon erreur boobu. ok su ma demul bëre ji indi médical. Mhm. indi ay médical donte preuve yu leer la. ki euh, leen di tunkara daa daw ñii ni yàq na làmbi jàmbur di def ba fin mi ngi xuloo ak moom. Mhm. man nag doomu gor laa bu ma dee daanu sax man damay dem daanu ji. mais ñi ma àndal di dem yëpp làmb ja bi combat bi desee ñeenti fan jëm juróom xam nañ ni damay rempli ji contrat waaye du ma leen indil ndam. yow waaye boo ne boo ma gisoon da xam ni bébé mii du yaa quelque chose quoi. mais say maara waxuñu la ko. ankay man samay maara yu bëri bi may jël kombaa bi tàgguma leen. xoolal Saloum yow kay. barke alxuraanu karim. billaahi wal kitaabi ak sama bakkanu doom bi may jël combat bi dama koo jël ba pare du koy yëgle. waxante naa jamay jamaïcain ba commencé jël xaalisam lam ma njëkk a jox doo ba xam ni lekk naa yëfu jàmbu nag yëgle ko mun naa xew fi mu toll nii ma doog leen koo wax comme ma ko ci wax nga ni ma ah sëriñ bun la ah kon am na lu ci xew. ba pare am na ñu la doon wax jamaïcain dafa dëkk parcelle ba pare nga jël combat bi. jamaïcain biir biir kër Père Ba la dëkk Faran dëkk biir kër Père Ba. waaye dama ni ragaluma ñu yóbbu woon combat bi biir néegu yaayu Faran ñu bëree foofu. Mhm. ragaluma loolu. kilomir rek ay gañ man promoteur bi moo ki may bëreel nañ bokk nday ak baay nañ bokk di ko organise ba bis ba man jom ak njàmbaar rek laa indi yaa yaa fuusuma ba daanu wanuma kenn métti te pourtant bi muy bëri ji sama tànk bii ngi métti métti bu grave ak yeneen yuñ mën ta wax ndax làmb daa doy waar gis nga làmbi jàmbur ji <laughs> c'est mbër yedd ko yërëm ko da koo gën. li dama ni gis nga mbër. mu ngi daanu léeg-léeg ko daa gën yedd ko ndax li mbër yi ñemee yëpp yëpp yëpp yëpp Balla mii sax bu ko ñemee doon champion darajay Seydina Mohamed yàquma benn répétition woon mais mais mais man dama rëccu lu ma doonee mbër darajay alxuraan li ma gis ci làmb non loolu loolu loolu man gënaluma quoi yu doy waar yu doy waar yu làmmeñ loo xam des koy misaal rek làmmeñ du ko laal lu doy waar te man man Seydina Mohamed lañ ma tuddee am na ci lool dama ko jomb makaarim laay dund muy këru jàmm gi sëñ Abdul Karim Mbàkke sama wasila am na ci lool duma ko sañ waaw bébé du ko sañ kon balaa caag ma ni fi ñukki làmbi Sénégal dem defi ko bitim réew dem defi ji MMA mën sa morom duma wax nga ko léegi ah waxtu bi daf ñoo xoj yow ndaanaan nga mhm. kon donc yow xam ngay ndaanaan làmb ji am na ay ndaanaan làmb ji am ba gaa yi tey Balla Gaye Modou Lo Lac de lañ Eumeu Sène kenn du moom surtout sàmmoxaan bi day ndaanaan ku fa diri nu ñoom bu duggee ci seen biir dañu ba kee topp nga gis ko kon bu dul woon ndaanaan du génn tey ba doon roi des moom ndaanaan ci moom la dëppee. dëgg dëgg ndaanaan la. dëgg ndaanaan la rek kenn ku ci nekk day ndaanaan. tafaatin bëgg bëgg mbër bañ mbër. ki dama ni bëgg mbër bañ mbër. bëgg mbër bañ mbër. la de dañ naan day défensif man mi sax dama ko ciy tooñ ngir bëgg a moom. Mhm. waaye champion la ko mënta daan kay champion la. Mhm. gars yi ak ñu koo naq ak moo naqaree daan man damaa ko mën a daan te ñemewumaa jël. waaw trois temps laay bëree ak moom. trois temps cest waaw bu doon bëree tey trois temps laa koy tegal li may wax ni bu ko déggee dina ko xam. Mm-hmm. waaw. liñ dese ci Bordeaux champion la. Tigre de Fass ndaanaan la. Bombardier kenn du moom borom xolu jamaa bi nit ku baax sama mag sama xarit. Mm-hmm. waaw ay champion rek nga ma limal ay kulu fadirin rek ñoo ñëpp ay ndaanaan lañ. dinañ fi ñëwaat def benn émission boo xam ci <laughs> euh, la mm-hmm. di la wax kontaan nañ ci yow. Mm-hmm. parce que à chaque fois dañ lay da nga da nga naan ma si yow la dépendre te suma frère nga ñu bokk fi ñu dëkk mm-hmm. ñaanal yow yoonu jàmm yàlla aar la. sàmm la ci barke Seydina Mouhamed ndax tabe googu nga wax ñun xam nañ ci dara waaw di la wax rek ah, bonne continuation xam nga dafa metti ñun ñi nekk ci micro yi sax dafa metti mais di la wax daal yàlla nit moom gudd fan ak wér la ñëpp di ñaan. merci beaucoup maa ngi bég ci yow di la ñaanal loolu di la ñaanal nga àgg niw yoon di la ñaanal yàlla bu la pakk fel li nga bëgg mébét ko ci sa xel ak sa xol yaa xam yàlla na ko sama borom eggali ndax jaam yéene mag pas-pasam rek la am mais ak àggalem moom suñu borom la la aju mm-hmm. kon yàlla na yàlla borom bi àggal leen maa ngi gërëm kulluhum rek mm-hmm. kuy suma supporter foo nekk rek fekk naa la fa di la masawu ci li ñu dal muy mbas mi mm-hmm. métti na lool lool lool na ñëpp fagaru restez chez kenn ku ci nekk na nga tënku ci norme yi ndax jaayuñu doole pour def loo ñu ko dee daa am mbër mu ñëw ci biir réew mi tudd corona kor ñu dóor ñu ipilkir ñu wàcc barestiku nar a egg jinaan yi loolu la gars yi di bañ instant mm-hmm. bu nekk rek da jël max yi anti zel zel yi mi ngi nii mm-hmm. na ko gars yi di jëfandikoo mm-hmm. ngir xama jéem ci mucc li gars yi digle daal ñu ne ci. mayante distance. ndax bu mu tee kenn nekk ci kenn nag bu mu tee kenn def li nga war a def. Macky Sall ndimbal li mu war a jox jaam ñi ba ma ko déggee man de yàgg na. waaye nag comme joti naa pour waxal jaam ñi. jox pour ñu war koo joxe parce que bu ko téyee ba mbas mi jàll. ah dootu am sens. nañ dimbali jaam ñi ndax kër yaa ngi saxaar. yaa ngi saxaar ci tàkk la jëm. ndax am na ñoo xam ne dañ daan xëy ba marché doog a mën a am dépense. am ñoo xam dañ daan xëy ba atelier doog mën a am dépense léegi gis nga tëj nañ li si ëpp ci place yi tëj nañ ko kenn liggéeyatul sama tailleur yi laata ngi nii géej naa xëy sëñ naar ñooñu xama amet boroom ñaari bébé yi mbay seen balla xama ma bëgg daal yàlla na Sénégal jàmm am fii mbas mi yàlla ñu mbas te dem yoonam ndax nag mag ñu baax ñaam fi diine jàng fi yàlla nañu sama borom suturaal ci barkeb alxuraan l'émission tire à di ko bëgg waat bu baax a baax moom rek moom dañ koy bàyyi ak yàlla ndax lépp la mais di ko bëggee amet borom ñaari bébé yi mu nekk koo xam te ne day sonn si ñun ndax nee naa leen ñun amuñu lu dul ñoom dañuy def dañuy def loolu nekk ndax ñoo ko sañ mais nee naa leen fépp fu wasaare àgg dafa am ñoo xam ne dañ faa nekk ndax suñu ne waa ngonal làmb waa groupe XFM te ñoom dañ ciy sonn dañ lay suivre defeel nii waxeel nii di jël say vidéo di ko tas kon ñooñu ñu seen fay amet borom ñaari bébé ñu lay bëggee bu baax ndax da nga sonn si ñun bu baax baax a baax di bëggee nag képp koo xamante ni rek instant bi fekk si nañ la ci biir kër gi ndax am na ñoo xamante ni xamuñu tur mais xam nañ kanam yi ñu leen di jaajëfal bu baax a baax kon ni ko waxee sama séeréer bu la a baax heure yi jëm sa kanam naan la rek euh, xale nga mais yaa ngi ci yoon bi kontaan naa ci yow bu baax a baax di waxaat nag gars yi nañ dem ndogu ji ndax dañuy préparé ndogu suñ préparé ndogu nag tëdd nelaw ba suba incha allah di jox ñëpp di daje ci beneen champion